asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi nuyuwaat nañ leen euh, ci wàccaayu màggal Touba 1441 ginnaaw gàddaak yonent bi salallaahu alayhi wa sallam di atum 2019 euh, ñu ñëw nag tey ci daral bi nga xam ne moo nekk ci ndindi di daral bu mag a mag boo xam ne taalibe yi dañ fi ñëw di fàggu li nga xam ne moom moo di euh, li dalee ci xar nag giléem ba ci ay bëy lépp rek ngir berndele ko ganuk Cheikhul Khadim tey nag ñu fas yéene ñëw xool daral bi nu mel ndax euh, njëg yi xéewale na ndax mbokk taalibe yi ñu ngi fàggu si ci gàtt yooyu ngir euh, gan ñi waaye it ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo yor euh, lu nu mel ndax ñu ngi ci def ay xéewal ngir jàppale mboolem taalibe yi nga xam ne dañ ñëw fii ci daral bi ngir am fi jur goog nga xam ne moom lañu fa yéene gar berndeele ganu Cheikhul Khadim yi donc mbokki téléspectateurs yi ñu ànd ak yéen dugg ci daral bi xool jëndkat yi xool jaaykat yi waaye xool tamit ñi nga xam ne ñoo yor daral bi ñoom it naka lañ ko organiser ba lépp mën a yemb fii ci lu ndindi bi ci wàccaay màggal Tuuba ku bëgg a teew na nga teew màggal si njëg gaa ngi ku mun la teew na nga jël aslëf te def ca ba tey bu yéene sellee nga feeñal yéene jëf jaa ngi loo def ci màggal gi sëñ Bàmba ngi gis ta du xeeb loo yéene it dana xam bul wax lu néew laa ngi ganaar ba jàpp gëléem dërëm ba ci miliyaar loo man defal loo mënul yéeneel jaa jaangi nun gaa yi dëkk ak Serigne ci biir dëkk bi lan saar yi kat yóbbul lenn muñ gaangi yonen bakat fu mu geesoo gis Serigne bi mu teew fi ak wetam gaa yi baa ngi gaa yaa ngi sëñ bambakat nee na doo gis kenn man ko ci too loobu yàlla bi alxuraan jëwrin jumat jaangi sëñ bambakat nee na doo gis kenn man ko ci to lub yàlla bi alxuraan jëwrin jumat jaa ngi lansaar yi mooy nun ñi am fii kër te gan ñi di ñëw yonen ba wax na lu wér ci gan addis baa ngi man kaana yoominu kon gan ñi na leen di teral yonen ba lii lanu wax toppal ndigal laa ngi nan wàcc sun lal yi jox leen toggi ñam joxe xiif di kaf di ree moo gën berne bi maa ngi. Ah, béréb bi nu nekk nag mooy daralu sëriñ Touba ci Ndindi kër sëñ Fallou ah, ban fi sañceeg léegi wax dëgg yàlla amuñu benn benn jafe-jafe ah, ndox am na fi courant am na sun xol sedd na guy gars yi nag bi affaire bi jub si na leen a woowoon réunion ne leen ñëw leen nu daje fii waxtaan ndax bés sëriñ Touba baa ngi jub si. bis bi bi bi bi gaa yi yëpp ñëwee taxaw dama leen ne wax ne leen ah, léegi de dama bëgg nu waxtaan ci bis bii di ñëw ndax sëriñ bi di nee na woon nañ koy nañ nañ nañ ko ci santalee sun boroom ah, kon nag gannaaw nun noo yore ndawal ndawal gi nga xam ne moom moom moom la sëñ bi sante danoo war a toog waxtaan waxtaan wu rafet ah, ban waxtaanee mooy nay na bari xar yi na bari bëy na bari ku soxla dara am ko ten woyefal ko. nu woyofal njaay mi ah, lu ci waay am mu mën a barkeel loolu laa leen waxoon. ña nga ca nag ba ma wëlbatikoo ma wax client yi ñi nga xam ne ñoo fi war a ñëw benn client bu ñëw di jënd bul wut intermédiaire defar defar defar ak borom defar ak borom àll ja en face. boo bu ngeen juboo nga wàññi xaalis bi jox ko soo dee fi bàyyi saw nag nga bàyyi ko ko soo ko bàyyiwut nga ne ko wutal ma lu ko teg mu tegal la ko ba mu jekk nga dem loolu laa waxoon client yi. Ah, ah, sun xol seet na guy bi. ndax boobaag léegi amuñu benn jafe-jafe commandant ñaam mi fi nekk andi na fi élément yu doy duñ noppalu guddeeg bëccëg ñu ngi circulé waaw sécurité bi doy na sëkk ba tey léegi la fi jóge commandant léegi la fi jógoon xëy na da ngeen a xaw a yeex waaye bu ngeen ñëwoon da ngeen fekkante da ngeen a jóyoo waaye léegi la fi jóge du toog benn yoon oto mbaa ngi daw ci biir gone yaa ngi ci biir centre mi ñu ngi ci biir bunt bu ne ñaa nga fa taxaw dara daal wax dëgg sunu xol na daal waaw sunu xol sedd na guy daal nay nay li tàmbalee ci un million huit cent mille ba ba cent cinquante mille waaw foofu yooyu fi am waaw. tey yu xéewal la li li tàmbalee ci un million huit cent cinquante mille daal ba ci suuf ba ci cent cinquante mille am na fi loo fi bëgg rek am waaw yombal nañ ko te nag suur nañ baax nañ waaw bu dee xar li tàmbalee ci cent cinquante mille ba ci trente mille am na waaw loo ci soxla am bu dee béy li tàmbalee ci quarante mille ba ci quinze mille am na waaw loo fi soxla am waaw. kon daal yéen daal waaw moom kay ci màggal gi leen ndax daral bi yaatu na genn wàllu kilomètre gu carré la. fii la ñuy jullee ajjuma jox nañu ci ndigal yilimaan ju mat yilimaan it lañ ñu jox muy sëñ Laat Bousso sant nañu Ala Ndiaye chef de village it sant nañu boole loolu ndax moom itam jàpp na ci liggéey bi loolu. liggéey bi daal wax dëgg yàlla danoo boole suñu loxo di liggéey lu ñu yóbbu sunu njaboot ak lu ñu def rek moo fi nekk waaw. amul yokk amul wàññi waxaalee ñaata ma naan ñaata ñu waxaat buñ jiboo nga fay ma mu jóg nga seet fenn ma toog loolu moo fi nekk nga fexe gisuma fi lenn lu jàmm kenn ku nekk boo demoon sa morom mën laa jaayal moo ne fii sama place bi su ma fi néewut ku ma fekk mën naa jaayal xam na li mu def kon nag ñoo ngi sant yàlla baax. lépp nag Cheikh Mamadou Fadal moom la ndax bi ñu fi sañ ci daaw jéeg boobu àll bi kenn nuyu ak àll ba nag fii ba mu ngi dem Touba ndigal dara nuyu muy àll bu kese ñu da ngeen bu ngeen fa demee pël yi dañuy fekk rek leen waaye gis nga ko tey julli ay waxtu foofu dara yombut fii ba jumaa jumaa gi day fees dell waxtu yi lu gàtt gàtt ga téeméer na la julli ci waxtu waxtu juróomi téeméer na ma téeméer na julli ci waxtu loolu nag fa tabaarakala ñu ñaan yàlla daal gudd fan daal moo la ñaan waaye lépp lépp mat na lépp doon na xéwal gi bari na sant sëñ Fallu doy na tasaarkal mënut a jeex sax lépp ko jox xar yi gileem yi nag yi lépp na xus lépp ñaar dara day ko yi ma fi ñoo xam dara lépp moom daal nañ laa jaay bu yë ba ba noonu daal mm, dara gi taxul jokk moo bëgg xadal boo xalee ñu am na ñoo xam ne dañuy wàññi seen xalal ngir xam ne mi ngi bëgg jeex te ku jeexul da da ngay sonn ñu wàññi seen prix sax waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah man maa ngi tudd góor gi Amar Ka gi Amar Ka waaw waaw ñu ngi yëngu ci daral bi waaw. Mm-hmm. nu ngeen gisee a koy jaay. Ah, nii de moom wax dëgg yàlla eh, ni ko gisee nii ci commencement bi moom nay yi bari na. Ah, fu ne nag jóge na fa fi ñu boo génnee ci bitteeg biir daral gi yëpp fu ne foo toll ci ban dimension nag boo soxla da ko gis si sa bët yow mi nga xam ne yaa jóg pour jënd si. da gis na woo war a gis rek eh, soxla rek da ko gis moom incha allah. Hmm. yi waaw ah, njëg yi moom par ay eh, kii la rek léegi naa noo ko bëggee rek am na ndax. li ko tàmbali fanweer ba fanweer juróom jëm ba téeméer moom daal bu nawoo ñëw rek macha la ak lam tollool waaw loo am na ñëwee daal moom di nga am nag incha ndax bu li ko tàmbalee fanweer daal jëm kaw la loolu lañ jot a gis fii ci wàllu njëg moom hmm. Ah, loolu moom dañ koy eh, dellusiwaat ci dëkk bi rek ndax comme dëkk bi dëkk yërmande la dëkk borom dafa woote woon eh, ñëpp santale ko yàlla ci bésam bii ku fi ñëw rek da ngay ànd ak yar ànd ak dal bi ngay fekk ci eh, gox bi moom ngay def su ko defee ci ngay wéy ndax ñëpp dañuy jàppalante di dimbilante gis ko ak ñu ñuy sant ba sax joge ñëw fi fekk indi woo dara waaye da ngay jaxasoog nit ñi rek pour mun am dara comme daal taalu be la rek moom moom mooy feeñ ci ci ci daral bi ñoom ñëpp ay taalibe lañu rek ku fi ñëw itam dañ lay woo ci taalibe rek waaw njëg moom ñu ngi ndax fi ñu toll fu ne nit jóge na fa ni ma la ko waxee xam nga bu baree rek day daal di yéwén waaw daal di yom te bari wax dëgg yàlla niñ ko daa gis ci bés yi euh, ni mu daa mel lu ci lu ci yokk waaye dara wàññeeku ci ndax fu ne nit jóge na jur gi bari te bu baree rek day daal di euh, client yi ñu ngi ñëw waaw ñu ngi ñëw moom macha allah ndax gis nga ni nga gis ñu ngi jënd moom ñu ngi ñëw moom bu baax a baax euh, bu bu ñu xëyee nañ jaay bu ñu itam nañ ñëw di jënd ni ñu war a jënde macha allah daal di leen gërëm ci di lu itam lu mel nii ndax dafa am solo ngeen ñëw fii waxtaan ak ñun laaj ñu suñu xalaat ci euh, gaacul ngeen waroon fekk waaye moom itam sama nijaay la sama lépp la ci turam laa waxi gaacul euh, mooy président moo jiite fii ci wàllu càmm gi fii ci wàllu daral gi ci wàllu nag waaw waaw ñoo ngi jaay bu baax a baax a baax sant yàlla bu baax waaw ñoo ngi jaay client yi ndax ñu ngi ñëw ndànk-ndànk bari wuñ lool lool na waaye ñu ngi ñëw ndànk-ndànk rek waaw. Ah, waaw walla ñoo ngi def keewal bu baax a baax kay ñoo ngi def keewal bu baax wallaahi. kar yi moom am am fu am na foo toll rek daal loo indi rek danga am xa dana def keewal bu baax. waaw wallaay sécurité bi moom ñu ngi ñuy toppatoo bu baax wallaay fii la ñuy fanaan ak ñun bëccëg bi tamit fii la ñuy yëndu ak ñun ñuy toppatoo bu baax daal. wallaay déedéet amaguñ fi am jafe-jafe de moom wax dëgg yàlla gars yi ñu ngi góorgóorlu bu baax de. waaw kari moom den doy incha allah den doy bu baax. man Mouhamed Salim Haydara lay tudd maa ngi jóg Fouta ci li Boubacar laa jóge foofu la dëkk. nag laa indi fii man la am na léegi mu ñaar fukki at ak dama ñëw fii ci Touba loolu xam leen maa ngi ñaan yàlla Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que ñu shérif la maa ngi ñaan loolu nag ci xalifa bi li mu toppal si daara Cheikh Ahmed Bamba ak li mu ci xalifa bi ñaan mu yokk affaire bi maa ngi kontaan am nay jàmm am nay ndax loolu nag am na tëral nekk loolu nag léegi nag maa ngi ñaan yow mu wax Cheikh Ahmed lii nag Touba mu avancé. donc la ñuy ñaan bi jaay Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak seen maam xam naa kontaan na dara mankuwul ndax mankuwul jàmm am na sàcc amul kontaan na loolu mu ñaan yàlla mu dem avance lu nekk ci xaalif bi bi jaay Muhammad rasulullah sallam yàlla yàgg bi jaay Muhammad rasulullah sallam kontaan waa Sénégal ñoom moom ak Sall waa li kilifa yi lu Sénégal jàmm rek la ñu am bi jaay Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu laay ñaan alhamdulilah mi ngi jar bu baax a baax mi ngi jar bu baax a baax lu nekk njëkk am na ba am fa war jënd nga am nag ba am ñett fukki jënd am lu nga am du ñàkk dara xam lu ñëkk du am njëgam ne moo am jotot kooku du may waaye nag ñu am njëgam rek di ko am ba soob yàlla loolu mooy baax kontaan naa nag kontaan naa góor gi njaay bi lu nekk kontaan naa ko daral bi waa ndindi kontaan naa ko ku dem soxla dara kontaan naa ko nag yi day wax dëgg doy na xar yi doy na giléem yi doy na de lu dem ngeen ca giléem yi ba gis ko loola war na leen loolu mooy yoon bi xar yi doy na leen lu manqué daal gisaguñ ko fi ci suñu daral gii gisaguñ ko fi de cey loo yor xaalisam it yaakaar naa da nga ko am moom li gën am na ñooñ nag xam nga da ngay yor fukki junni fekk xarum ñaar fukki junni nga bëgg ko xam nga loolu day metti yor ñeent fukki junni yit nga fekk gileemu juróom benn fukki junni nga waxaale ko loolu du nekk yor fanweeri junni it fekk nagu juróom fukki junni nga di ko lool it xam nga mooy waral seer gi waaye seeru ñu de wax dëgg ren de seeru ñu wax dëgg yàlla ca compte na. loolu daal mooy li ma ca xam moom seeru ñu de moom man mi ci liggéey daal li ma xam mooy wax dëgg yàlla seerut waaw seerut de moom. client yi kay moom ñu ñëw moom kay fi mu ne nii tubaarkàlla moom ñu ngi ah yéen ji nga ko sa bopp <laughs> yéen gis dem ngeen ba wër li ci biir léegi na ngeen jox sama gan gële jóge ci kii moom Moussa ci kalaat moom it waaw googu daal moom am na lu ku baax la nag moom it sama xarit bu baax la moom it wax dëgg ah jërëjëf. ma jooju gi laa tudd dëkk Touba euh, màggal si woon euh, ay ay nag lañ wut si woon yoo xamante dañ koy def ci bis bi yooyu daal lañ wut si lañ wut si woon dëgg yàlla waaw waaye nag euh, san sëñ bi rek ndax moom dañ koy di ànd xol bu neex waaw luñ ci mën a fere tamit sunu xol day sedd guy ci fere yi waaw moo tax ñu ñëw fii ngi wut si ci daral gi waaw sunu borom daal fayal ñu sëñ bi daal. waaw loolu moo tax waaw. na lu mat ñeent nag ñu ngi nii ci kaw euh, juróomi nag ngir bernde waaw lool loolu kese moo tax ñu fàgg ko nag yi nag moom seer na loolu waaye sëñ bi jaral nañu lu ko ëpp waaw buñ doon melaat suñu bopp def dañ koy def ñu ngi ci bu baax a baax a baax rek mbégte lañ ci yëg ak xol bu neex xol bu sedd guy ndax sëñ bi moom wax dëgg yàlla moom ku ku xool lim lay defal ak lim la fayee euh, doo am ak jaaxle ndax màggal gi bi mu waaj ñëw wax dëgg yàlla su ma la nëbbul yoruñu woon dara waaye bi nga ko ñaanalee ni ko sëñ bëgg nañ la berne gan yi suñu boom la ko daal di yombal waaw kon sëñ Tuubaa yàlla ñu ko moom màggal loo ci def boo déwénee da nga def lu ko waaw moom ak gis nañ ci bu baax a baax a baax. waaw. Jili laa tudd Jili Guèye. Euh, dañ doon xool si nag yi. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant sëriñ Tuubaa bu baax a baax li ñuy def nag lépp rek ngir sëriñ bi moo tax ñu koy def waaw parce que sëriñ bi rek moom moo ñu ko manal waaw moo taxoon ñu ñëw ci daral gi nii pour xool si nag yi jënd si nag waaw dañuy jënd si nag waaw. waaw pour màggal gi teeru gan ñi teral leen waaw loolu rek moo taxoon ñu ñëw ci daral gi tey waaw sant sëriñ Tuubaa rek bu baax a baax. waaw njëg gi moom taw feexee na tamit en plus parce que ki ñu jaay nag yi suñu papa la moom da ciy def taw feex bu baax a baax a baax a baax waaw. <laughs> voilà mbokk yi téléspectateurs yi kon ni ñu ko àndee ba léegi ñu ngi fii ci daral bi doon xool la ci euh, li nga xam ne moo di euh, jur gi nga xam ne moom lañ fi euh, fàggu ngir gan ñi ngir berndeel leen ginnaaw bu ñu demee ci fi nga xam ne fi la ñuy jaayee nag yi dem nañ ci xar yi dem ci fi ñu jaayee bëy yi fi mu toll ni ñu ñëw ci fi nga xam ne fi la ñuy jaayee giléem yi giléem ñoo nekk nii suñu ginnaaw kon ñu fas ne dem rek xool njëg yi fu ñu toll waaye it ñi nga xam ne ñoo koy fàggu si ngir taalibe yi waaye xool tamit kilifa yi nga xam ne ñoo yor fànn gi ndax daral bi dañ ko organiser noo xamante ni pàcc bu ci nekk am na jëriñ ju fa nekk moo xam ci nag ya moo xam ci xar ci bëy ba fii nga xam ne moom moo di ci giléem yi donc ñu dem découvrir tamit fi ñu jaayee giléem yi la fii ci ah, wax dëgg yàlla njëg bi neex na baax na bari na te xam man fii laa bokk bokkuma ak gan yi fi ñëw man fii laa dëkk fii bokk te daral bi macha allah jàmm ma fi nag te gëléem yi jar na jar bu neex te de magal des na tey ak suba xam naa li ci des xam naa dina jar sant yàlla ak sunu borom waaw. njëg yi njëg gëléem yi am na yu jaar 750 am na yu jaar 800 ba 350 ba 400 njëg yu neex nag wax dëgg yàlla. gëléem yi baax na tamit. gëléem na nañu waaw. kii ñi ñu ñëw bu baax. waaw ki jënd gi sax ñu ngi ñëw tey léegi na ñëw tey ak guddi gi xam naa ne ak suba te xam naa léegi na yaakaar. waaw ah, te gileem yi am na fu mu jaar nii ba Paris li ci dese xam naa ne fii ak suba xam naa dina jeexe te njëg bi baax na te gileem yi sóor nañu. client ñi ngi ñëw alhamdulilah macha allah. mi ngi sant yàlla bu baax ak borom Tuubaa te man taaliba la bokk waaw ah, baax na jërëjëf marhaba baax na jërëjëf. Ah, jërëjëf ku baax euh, daral gi moom euh, dañu ñëwoon tey ngir waajal bis bu tedd bi. ndigal li ñu sëriñ bi digal muy ñu santale ko yàlla ci bis bi ñu ñëwoon doon wut si gileem ngir uh, màggal bis bi ni ko sëriñ bi santaane ñu ànd kook moom uh, santale ko ci yàlla. waaw uh, loolu moo mooy sababu ñu ñëwoon ci daral gi doon fàggu gàtt ak gileem ak ngir waajale ko bis bi santale sëñ Touba suñ borom. waa gile bi nag ñi ngi xéewale waaye nag taxul mu yomb. ndax euh, gileem gi ci gën a ndaw danañ la ko jaay juróom-ñaar fukki junni waaye nag sëñ Tuubaa moom jaral na taalibe yi lu ne ah, buñ doon miraas sunu bopp sax di ko di ko def danañ ko danañ ko def ngir euh, jëfe ndigalam ah, waaye gileem yi daal moom gi ci gën a tuuti moom faaw mu mat juróom-ñaar fukki junni ah, ci CFA waaw. Hmm. waaw buñ koy euh, yëg dañuy dañuy li yëg mooy santaat sunu borom. Ah, ak itam gën a gën a xol bu neex di ko génne ba noppi ànd ko xol bu leer ah, te xam ne taalibe yëpp yéene jooju lañu am ah, tey ji eh, taalibe bu nekk bu señoon ñëpp sax dañuy toog mu def màggal gi ndax sëñ Tuubaa moom la suñ borom fayee eh, jaam ñi ba tax na nangu gim nanguloon sunu borom moo tax sunu borom def ci doomu aadama yi xool yi nangul ko ndax ab taalibe bi di muy jëf du ko gis sax ah ndax loolu dañu dégg génn kilifa gu mag ñu daan ko wax sëñ Mor Mbaye Cissé dafa daan wax ne euh, taalibe bi sëñ Touba li mu wuuteeg ku dul taalibe ndax bu bu fanaanoon a jëf ba bët set sëñ bi day jël la mu jëf ca kanamam nëbbal ko ko ci ginnaawam du ko gis moo tax murit yi lu ñu jëf fi mu toll nii maanaam nit ñi ñoo ciy teg seen bët waaye murit ñoom dañuy seen xol day day day day tooy ci maanaam xeeb li ñu jëf lépp lu ñu mën a jëf rek lu ñu mën a jëfal sëñ Touba xeeb nañ ko. waaw ah, foofu la sëñ foofu la sëñ Tuubaa toll loolu nag moo ko def diggam ak sunu borom sunu borom fayee nu ko rek waaw ah, noonu rek lañ koy yëgee waaw. Abdoulahat Diaw mooy wax Abdoulahat Baara Diaw. Hmm, ñëwoon ci dara gi fàgg si gileem. waaw dañoo ñëwoon ci dara lépp rek xar ak nag ak gileem ak leen jënd ngir terale ko gani sëriñ Touba yi li mu wax ne ñëw leen santale ma yàlla sunu boroom loolu ci lan taxaw. Euh, doon ay taalibe nekk jëwrin euh, yoo xam ne si ci kër sëñ Abdou Lahad Baara kër sëñ Assis Laat Baara ci kër sëñ Xaadim moom sëñ Assis Laat Baara ci ndigalam lañ ñëwee fii ci daral gi faggu ay gileem nag xar euh, pour teral ay ganam rek ak gani sëñ Touba yi nga xam ne ñoo ñëw ci bis bi njëg xéewale na xaw naa kawe nag léeg-léeg gileem yi daal moo gën a kawe euh, nag yi moom nag yi moom prix yi tubaarkàlla xar yeet xaw naa wàññeeku moom waaye gileem yi daal moo cher lool. waaye nag lépp sëñ Touba attan na ko mën na ko euh, te te ñi nañu ko ba euh, poos yi taalibe yi ñoom lu lu lu lu lu ne leen nangam la rek ñu ñokki joxe. ba lépp mat na fi mu toll nii ay oto lañ bëgg a jël jàpp suñu gileem sarse dem yóbbu. di ñaan yàlla mu defal nu jàmm ak salaam ak wér ak wér le nun ñëpp sun màggal gii nu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ko ci alhamdulilahi rabbil alamina di ñaan yi sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool ci wér sëñ Moustapha nag nun waa daral gi amunuk payam ndax ku bëgg daral gi la bëgg sëñ Fall lool yëmali kook fenn fii la xool xam lu may fii keroog bi ma ko gone yi waxee it ca suba sa la leen fi yebal waaw lu di jënd it fii la koy jënd du ko jënde feneen ndax moom fii rek la xam xamut ba ma ko waxee la ne bu ñëw xam naa loola it xam nga démb nga ma wane da ñëw léegi nag nu leen di sant yéen waa télévision bi ndax gis neen ni ngeen taxawaay bi ngeen ci taxaw rafet na fii nag liggéey bi jàmm doo nga fi am lenn amut lu may naar beeg pël beeg wolof beeg séeréer bi daal ak bambara bi ñëpp benn lañ fii daal xàjjaloo amu fi. ñëpp taalibe lañ daal xàjjaloo daal amu fi ñëpp doomi day ñañ it. loo bëgg ci sa moroom it da ko am loo soxla ci sa morom daal xam naa boo ko soxlaa boo ko waxee da ko am ànd nañ daal nekk benn def wenn say. loolu daal mooy li nga xam ne laaj ciy sant nu koy ñaan nag boo demee ne ko noo ngi ñaan moom mu yàgg liggéeyal maam Cheikh Fall lool di jëwriñ ji mu taxaw daal gis nañ ko xam nañ ko fi mu taxaw daral gi it xam nañ ko màggal guñ mën a def yàlla na ko gii dàkk ñaan ak wér ak wér le yéen waa télévision bi it nuy ñaan ngeen jëm ca kanam. voilà mbokki téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel euh, kon lii mooy reportage bi nga xam ne moom lañu leen doon defal fii nii ci daral bi nga xam ne moo nekk ci Ndindi di daral bu mag a mag boo xam ne waa tubaay yi dañ fiy ñëw di fàggu si euh, nag xar ba ci gileem ni nga xam ne noonu la ko Serigne Touba waxee ne sant leen ma yàlla ci la ci ginaar ba ci gileem waaye daral bi bàyyiwuñ lenn loole nag taalibe ñu fi ñëw bu baax a baax. di fàggu si ci euh, gàtt yooyu ngir berndeele ko ñi nga xam ne ñoo di gan ñi dégg ngeen ñi nga xam ne ñoo koy fàggu si waaye dégg ngeen ñi nga xam ne ñoom ñoo koy euh, jaay def ci xéewal lépp ngir sant Serigne Touba santaat leen gërëm leen bu baax a baax a baax ci euh, bàyyi xel gi ngeen ñu doon bàyyi xel di ñaan laat Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu tànn ak wér di leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf nan wàcc sunu lal yi jox leen di kaf di ree beli moo gën berne mbég maa ngi waykat ba nee na lu gan gii maanu maanu du tee buy dem di nettali lam ges moytu xas waa ngi nëbbal sa jikko te jikko yiw te nëbbu sa mer bu mar te bu mer te it nay maare yoon waa ngi saggan ba saggan déwén buy del si waat xalaat dalaat sa kër te nga ne tuuba lu ñaaw laa ngi sagan bu yegsee ne moom daa sonn na ko wutal fu yaa mu soonu fa yow féexal ko ndam laa ngi buy lekk it bu ko boole jëmm yooyu xamu leen bu dee borom kersa day ru suur te lor jaa ngi bul gëdde bul xasse bul dóor donte day gone sax ki teewu gan gi da koy rëdloo lu ñaaw laa ngi sàggan ba sàggan déwén buy del siwaat du xalaat dalaat sa kër te nga ne tuuba lu ñaaw laa ngi sëriñ bi baaxe la may lëkkër gu yaa ne fayax mu am ganam ñii bu leen merloo lu sew laa ngi yow gan gi nag bul nekk gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tàkk nga koy ñaan paas lu soof laa ngi yeneen bayit dafa wax ne addiyaafatu nag salaasatun ñetti fan mooy ngan waxam jaa ngi sëriñ bi fàggu na laajul kenn lum bëggaam lu waay di jox nit na doon lum man digal laa ngi ku dal ci kër gu ne war naa fonk kër ga mu dal ngir picc sax car ba muy dal naw ko roy gaa ngi